yaanu jaral nu yoo di foon diraamu laallana yaati bi kal maraamu yaay sunu nday di baay di mag di maamu yaa dib sëriñ yaa doon nu mbër yaa jara way yaa jara jox nosal nu sunu ruuyi nde yaay limaamu yaay noo balab lislaam bi noo lay jaamu ngir suñ boroom balaaxu yaa ko jaamu ngir masulaa def lu naa xaraamu sa yërmande nu tàggaleek xaraamu Di musulama mu mu mbaa ngay baamu ma ilhamu. baraw na ya wax yu mustafa nu mustafa samsamu. Ya ahmad na Ahmadah kam kamu أم المواكين كالأيتام كنز الفقير yow la réew mi taamu raa yow nga neel wi yaa ko yor maqaamu yaa yor ndaraapu gaaya am lislaamu ndakaaru yaakaar nañu la ñing lay raamu muriita kubu tiijaana kubu limaamu ñépp teeru di bañ malaamu yaay seneraalu diine yaa xalaamu tawerekaan wi njambe moo lay raamu sant ndax mu dolli koy maraamu